ah amul lu mu waxul Macky Sall amul lu mu waxul Macky Sall ku toll ni Kaliphone wax bu ñaaw bu ne wax la ko Macky Sall Macky day live ak Kaliphone di ko recevoir ah Kaliphone eh, di ko nax ah non man dama xam nga benn affaire dafa am Kaliphone saaga yi mu njëkk di saaga moo dëggu ci moom saaga yi mu doon saaga moo dëggu wax yi mu doon wax yi mu njëkkoon di wax di ko wax Macky Sall moo dugg ci moom téléphone dafa dem ba amatul dara mu wëlbati ko ci Macky Sall di ko tarbiyu di naxanteeg moom pour am xaalis sama kotom parce que wax na li bëgg ah Kaliphone dafay liggéey liggéeyu intérêt sama gars yi Kaliphone da doon liggéey liggéeyu intérêt de parce que taxaw na ne carrément Macky Sall jaabante na pour Macky Sall recevoir ko recevoir na ko nag kañ laa leen ko doon wax barki démb a ngi jaabante pour Macky ne ko damaa bëgg kër ak oto ak xaalis damaa bëgg ñibbi amatu dara parce que dafa torox fu mu toll parce que Kaliphone bu doon neexal Macky Sall mënoon na bañ a saaga Ousmane Sonko mais saaga Ousmane Sonko yi saaga Ousmane Sonko moo tax muy torox parce que moom commencé na saaga ba pare kay que mu njëkk saaga xam nañ ko léegi bu noppoon ci Ousmane Sonko neutre bañ ko saaga dinañ xam ni koy amul day wut comme ñëpp a ngi wut kay comme ñi nga xamante ne ñu lu yomb yëpp a ngi wut ndax moom loo ko moom Macky Sall loo ko bañ bañ bañ te di saaga Ousmane Sonko moom pour moom bëgg ko ko xam nga tamit mi ngi doxee rythme bu garaaw parce que Macky Sall dina fat ba fat bi nga xamante ni jekku na ko est-ce xam ngeen loolu <laughs> non non Macky li muy def xamu ci dara dara dara dara mais doy na waar doy na waar xoolal ku toll ni Californie amul lu mu la waxul xaawi si sutura taxaw nga di ko recevoir nañ waxante dëgg nag noo man dama am gàcce sama gàcce gi yàlla bu ma rey beneen bi mooy xoola ma Faye Sall recevoir ko ne ko yaa doon saaga président xoolal lii rek lii dafa ñaaw dafa ñaaw mais nit war a am dignité personnalité mais nag damay euh, dama fàtte ni ngëm yàlla bu bu raxasoo sa xol wedd yàlla nekk ci sa xol doo jommal sa bopp dara yow lu ñëw da ngay encaisse lu ñëw da ngay jël mais alaa kulli xaal doy na waar doy na waar doy na waar patriote doy na waar torop torop bi mooy beneen bi mooy kooku naan ay Sonko dañ ko war a rey ak nangam ak nangam kooku moom ko bu koy bu nee dañ ko war a parce que pneu otoom yooyu ñu defoon jafur laju yàlla bañ na patriote tam ñu bàyyi xel sa oto naka nga koy dem di eh, yow yaa ngi taxaw fi di manifester di ko dem di ko di ko di teg foo xamante ni sori na te nga xam ne yow na la leer ni na la leer ni yow fi nga taxaw fu sori yow yaa ngi ak say noonu waroo arrêté sa sa kii fu sori sa oto fu sori ah mais lu mu sori sori wutal ay garde rapproché ñu taxawal la ko tamit ñu bàyyi xel tamit gis nga loolu ci boppam am na ñoo xamante ne muñ na ñekk sa biir sax ñu fay leen parce que action bi lu mu grave te kenn ñëwul signalé ko ñuy buddi ñuy ñuy ñuy jindi euh, vis yi te kenn ñëwul signalé ko am na ñoo xamante ne paaka bi lay rendi sax waaye koy daas jox la patriote tam nañu bàyyi loolu xel te ñu xool tam garde rapproché yi ñuy jël bu baax a baax a baax a am na ci solo parce que fu waa APR di woote ay garde rapproché naan bul dem ci Ousmane Sonko foofu wóorul ak yooyu yaa quelque chose yaa quelque chose parce que ñoom ñu ngi topp te ñun amuñu jot topp leen mais APR maa ngi leen xamal benn affaire li ngeen ñuy topp da ngeen faqastalu daanu dugg ci kàmb ñu suul leen parce que kay yéen li ngeen ñu ngeen ñuy pexe dañu ko gëstu ñun ko gëstu ñun duñu leen ko gëstu ñun yàlla moo ñuy sàmm te yéen iblis ngeen xaritool fétiche ngeen xaritool pour mu sàmm leen mais ñun yàlla moo ngeen def di ngeen feeñ lu ngeen def di ngeen feeñ maa xalaat gëm leen yàlla patriote te gis nga doomu aadama boo yàlla ñu yàlla may judduwaale ngor gis nga ko taxaw naan man damaa judd ci xaalis yaroo ci xaalis xaalis mu maa jommal non non ci xaalis amul fenn kuy tiitaroo tiitaroo judd ci ngor ak doylu loolu mooy nit gis nga boo juddoo ci ngor ak doylu alal du la jommal xaalis du la jommal xaalis kenn du ko judduwaale fii ku fiy judd yaramu neen ngay ñëwee te yaramu neen ngay demee kon donc ku naan damaa judd ci xaalis yaru ci xaalis màgg ci xaalis xaalis du ma jomal kooku kooku du nit kooku du nit gis nga judd ci xaalis judd ci ngoro ko gën parce que gouvernement Macky Sall ngi ne am ay xaalis sax amuñu seen ngor ah ngor yaa ngi fi ñu jënd seen jaam ci xaalis kon donc dee leen judd ci ngor man Oumy Gueye de ci ngor laa judd màgg ci ngor xaalis jommalu ma gis nga ngor ku ci judd loolooy xaalis loolooy noobu loolooy dignité loolooy personnalité gis nga nit ki boo gëmee yàlla ngor da lay dugg ba saxoo ngam yàlla dara faqul sa bët ngor da lay dugg doo jaay sa ngor kenn du la mën a am te kenn du mën a am sa njëg loolu mooy ngor mais gis nga ñiy tiitaru nii ay damaa am xaalis man damaa fekk sama baay am xaalis ma am xaalis ku ñàkk jom rek kay wax loolu ku ñàkk jom rek kay wax loolu Ousmane Ousmane Sonko mos ngeen ko dégg mu ne man damaa am xaalis sama baay am xaalis wala nangam ak nangam leen ko de te baayam ci état la doon liggéey te état ku ciy liggéey ah soo doxalee yoon yaag baadoole bi yéen a yem boo ci liggéey boo doxalee yoon yaag néew di doole bi yem parce que amul tax sa salaire nga fay xaar ak sa ñaq mais état képp ku fay liggéey teel a tabax étage ak dem ak dëkk Europe fu ne sàcc nga fayu nga bandi nga maa la wax ni képp ku fi liggéey Abdou Diouf ba nëga ni Senghor ba nëga am France kër sàcc nga moo moo ko sàcc nga da nga sàcc askan bi da nga nelawal askan bi te pourtant am na ñoo xamante ne am nañ am nañ France kër mais ñoom duñu référence képp kuy liggéey ci gouvernement bi am France kër wallaahi du référence sàcc la ak foo mënti kooku sàcc la dafa sàcc am ay immeuble kooku sàcc la mais yéen itam nag affaire bi attana ba ba xoolu Ousmane Sonko 15 ans impôt au domaine salaire ba baax lépp ba baax suuf yomb ko mais benn cité kër góor ju nga ko mën a wax ci kër gu simple parce que kooku du sàcc mais képp ku liggéey ci ci état am benn kër ñaari naan naan am naa ñetti kër ñaari kër sàcc na boo ko ñemee nee ko yow sàcc na te man képp koy liggéey ci état bari ay kër ki oto ñeewu ma la nawloo ma la parce que sàcc nga alalu askan bi ngay sàcc ñooñu du ñu ma mën a bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñi ko bëgg dama bëgg ngeen dégloo ma xel bañ ma dégloo xol parce que man waxuma li tax neex nit ñi man damay wax li nga xamante ne mooy dëgg ëllëg dinañu ummi gay waxoon na ko su fekkee dee naa ñu woo samay doom ni leen seen seen ndeykat waxu ci dëgg la lii la waxoon comme Sidi Lamine Niass fii la taxaw ne carrément Macky Sall carte du ko fi jëlee tey toog ba sonn wala ngeen sonn jëlee ko fi te ñooy sonn bi soobee yàlla jëlee fi man samay kàddu noonu lay demee voilà. kenn yàlla laa yaakaar sama dëgg laa yaakaar di ci wax voilà dëgg nag ñaar la nit dina la fan ci sa dëgg may la nit dina la fan ci sa dëgg encouragé la si nga si sax nit dina la bañ ci sa dëgg xañ la dara waaye dëgg lu mu la xañ dala koy mayaat fen nag lu mu la xañul du la ko may waaw. dafa ngeen ni Kaliphone war na taxaw devant tout ku war a am personnalité ah man ummi gay rek laa wax ku ma saaga amatoo fitu taxaw naan ma ay eh, danga may bàkk ka kañ xool yi fu ñàkk fayda yooyu xool yi fu ñàkk fayda yooyu maanaam daal yow daal gis nga nit nag boo demee ba sa askan def la escalier bu ñu la bëggee saaga saaga la bu ñu la bëggee ma wàccal réew ma gaaw dawal dawal dawal gaaw bala ñu ba neexul la boo demee ba sa askan di la saaga saaga la ba ba nga tooy wëlbatikuwaat di la neexal jox sa xaalis non wàccal réew ma dawal dawal dawal gaaw bala ñu laaram neexul ba neexul nag neexul ba neexul te beneen bi mooy bàyyi leen Ousmane Sonko ndigal laay topp Ousmane Sonko ndigal la ñuy xaar mais Ousmane Sonko moo leen di jox ndigal mais yéen a ñàkk fayda en tant que seen doomu réew en tant que ngeen doomu réew bi moom seen Sénégal Macky Sall ba ngeen koy watal da ngeen a xaar ndigal Macky Sall da ngeen a xool mu neex leen ngeen watal ko man wataluma ko ma suma ko wateel moo tax man moom sama xol sedd na foofu Macky Sall ba ngeen koy watal dafa da ngeen a ah man Sénégal Sénégal est-ce que nit la ñu tamit damay xaar Ousmane Sonko ndigal la ñuy xaar Ousmane Sonko ñu koy woo ci eh, dangay yee fitna ngeen xaar mu jox leen ndigal kon de du ngeen am ndigal pour la mu leen jox ndigal yéen Ousmane Sonko amul lu ngeen koy fay Ousmane Sonko tay la bakkanam tay la laay ba tay la lépp mu ne fàng ni ay nit topp ko fi duutuka ah, duutuka fa fay ay xaalis ñu dem ba ba ba Casamance bëgg ko rey bëgg rey yaayam tajate ay oto mokkate ko manifestation bu yàggul bi ñu jënd ay pneu oto kii yi kon boulon yi vis yi ah ah am koo xamante ni ñu ko ñu ngi ko dëkkal mu jàkkaarloo kër loolu yëpp pour rey Ousmane Sonko loolu yëpp mu dégg ko di dox ak di dox ak wéttaliku kàddu suñu borom ngeen ne Ousmane Sonko lay xaar lu ngeen di xaar Ousmane Sonko c'est fait l'occasion du nee leen duñ fi manifesté ba àjjuma jàmm incha allah àjjuma gën ci àjjuma yi ku ci xeex am lu gën ku ci xeex am ndam li gën ci ndam li dama bu ñu taxawee ne kenn du fi manifester na démarré juddu gu rëy fullaak fayda xam nga lan mooy juddu gu rëy juddu gu rëy xoolal du noble du xaalis du dara juddu gu rëy xam nga lan gëm yàlla juddu gu rëy gëm yàlla boo gëmee yàlla te ñàkk fayda nag yàlla da lay jëppi Sénégal nag gëm nañ yàlla mais dafa des wóolu ko moo des wóolu gi moo leen génn xeex jàmm dañu koy xeex Seydina Muhammad jàmm jàmm julli julli juróom dafa riñaan julli juróom riñaan dafa ko riñaan juróom fukki julli la ko di ko riñaan di ko riñaan ba ba ñu am juróomi julli waa juróomi julli yooyu ñu am da xeex da xeex dem riñaan ko opéro xolam bi rek dafa metti woon ba mu gisee Jibril dafa metti woon mu daw di kat di lox loolu yëpp da koo xeex waaye léegi lu tax yéen mënu leen gën a xeexal seen bopp ñu xeexal suñu bopp xeexal suñu askan suñu sët ñu naan Ousmane Sonko Ousmane ba yegg si fii Ousmane waaye lu tax ñu mënuñu xeex jëlee fi Macky Sall xeex bi balaa neex ne Macky Sall ñibbisi du du France la ñu tontoo na ñibbisi fii ñu xaar ko bu ñëwee ñu wër ndomb aéroport yëpp nag géewal ko ci digg bi ko ci digg bi ne ko ñoo ngi nii nag bañ bëre sëgg bëre bañ bëre bëgg bëre sëgg bëre aywa lii mooy wax ji bu ñu xaar benn ndigal ah mais Sénégal yéen tam nag ah man mosoo leen xamee ñàkk fayda kon pour lan ngeen di xaar ndigal xeex kuy xaar ndigal ah ku ñëwoon tey tëgg la mbéj da ngay xaar ndigal sa papa wala kenn ne la fayul nga soo ko fay wala tëgg mbéj boo ko tëggee mbéj waa abal la foofu kon looy xaar ndigal yéen xeex bu leen ma mer loo waay yàlla ànd ak yéen xeex boo xamante di xeex cagam fayu bànn yi jiite suñu réew kon yéen lu ngay xaar xeex loolu kay waruñu xaar ndigal ah waaye nañ leen ko def fi jantal maan waaye dañ leen ko defee fi gentleman nagam ñun jigéen ñi ñooy xeex di ko defee fi gentleman massa góor ñi ah bu ngeen bëggee tam jiital leen ni ñun jigéen ñi daw ñu daayu ñu saara yaayu ndaya parce que mu na laa ne man waqul wallahu yaqsimuka minal naas maa la ko wax de xeex rek am ndam xare ba daal lii ilaa fi Quraysh jeex na tàkk jàmm da koy xeex jàmm da nga koy xeex deret moom foofu ñu gis ko deret ma ne doom ju baax bala nga koo wasin foog nga gis deret lu baax bala nga ko am foog nga gis deret xare badar deret Seydina Moussa sa balaa samp Medina makkatal Medina deret kon uwee deret gis nga nit ki boo bëggee dee boo tëddee sa lal sax da ngay dee ana ña dee ca géej ga ana ñu tëdd seen lal dee kon lu ñuy ragal dee lu ñuy ragal dee bu yàlla ne xanaa xamoo yàlla bu nee malaakal mawt am na xeex bu war a am ñii kii ak kii ak kii fa ngeen ma war a jël seen ba sama baq seen baqan xoolal xeex ba bu am téeméer malaaka wuute rek xaar ñooñu ba téeméeri ak yooyu xeex bi ñëw ci la war a jëlee seen baqal ngeen xam loolu ngeen gëmee ko yàlla bokk kon xamu leen ko yàlla yàlla mun na ne xoolal téeméer yi di xeexi bu ci kenn dee xam tax da ngeen a dem ànd ak gëm yàlla jiital yàlla tàggu yàlla yàlla sàmm leen aar leen sama gars yi xeex rek Macky Sall dafa ñu tontu France bu ñëwee nañ wër aéroport yi ndomb yëpp géewal ko nag ne ko ay ca laa nga baa ngi bëgg bëri bañ bëgg bëri sëgg bëri lii mooy wax ci Macky Sall kenn àndatul ak moom Sall ñëpp war nañ ko ginnaaw te arme bi dina am ñoo xam ne noonu lañ koy gàntale dama ni maa ngi leen wax benn affaire wàccee leen kaamil balaa àjjuma ku mën a wàccee kaamil wàccee kaamil ñun de suñu groupe ñu ngi wàccee kaamil léegi mu jeex ku am sa groupe dugalal kaamil bi ngeen ne ku nekk kii na jël naa baqara kii na jël naa yaasin kii na jël naa mimra kii na jël naa tawba kii na jël naa arahmaanu kii na jël naa kii def leen loolu bu ngeen ko defee ba pare alxamis su guddi jeexal kaamil bi ñaan combat continué da ngeen xamul ñaan ñaan leen te dëggal seen bopp conseil constitutionnel bu ñu leen bàyyi gannaaw ñoom ñëppay dugg seen baxu kaña gis nga ñi ñu yaakaar ñëppay wëlbatiku wor leen man maa leen wax ñëppay wëlbatiku wor leen ñu bari dinañ leen wor Macky Sall moom xam na ni torox na ba pare ku dem bay recevoir Californie c' naan maa ngi lay yemee ci réseaux sociaux non non xam nga ñan laa yërëm ñu ànd ak Macky Sall. ñooñu après xoolal yàlla da leen di raxas ci xolu askan bi ak foo mën a féete te léegi ma xamal leen leen Macky Sall tëj na ay compte yu bari ah. est-ce que xam ngeen loolu am na ci koo xamante ni Macky Sall tëj na compte am parce que Macky Sall liggéeyloo na ko mission am doxul demut te kilifa la de mais tëj na ñaari compte am Macky Sall ministre yu bari mi ngi tëj seen i compte kon nga xam ne liggéeyam doxul dafa mer fu mu toll nii comme ni comme ni Marème fay taxawee France ne carrément. non maa fay moom rusloo taxaw France xoolal yow géwél war la waxal nga nekk di sànjaxoo ak ak a sàllax di net bi TV ah, ñu war la waxal ngay waxal sa bopp naan waaw bu ñu ñëwee fii ngeen ni kii ah lu ngeen bëgg président defal leen ko ah te bu ngeen demee dara du sotti <laughs> ñooñu di ko rey di ko tàcc nga xam ne seen xaalis la ñu soxla fu mu toll nii seen xaalis li gën a bon xam sa nguur jeex na nga ne da ngay dëggal sa bopp da ngay torox da ngay toroxal sa bopp da ngay sa bopp Macky Sall dama la xamal leen ne àndandoo yëpp tëj na seen compte ñu ci bëri tëj na seen compte parce que xam na ne liggéey bi doxatu ñëpp war nañu te ñëpp a koy war ah a koy war gis nga ni ñu ànd ak Abdoulaye Wade jóge ci moom ñëw ci moom xool ñëpp ay jóge ci Macky Sall man maa leen wax lii te gis nga balaa wàcc ñu bëri dañ ko boole wax ay secret yëpp tamit ñu ngi ci nii non Macky Sall euh, alaa kulli xaal li ma leen wax bàyyi leen ko xal